asalaamaaleykum mbokku Ndakaaru asalaamaaleykum mbokku Sénégal monsieur le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi Khalifa Ababacar Sall maa ngi lay et tous les leaders de Yewwi Askan Wi Messieurs les représentants de la grande coalition Wallou Sénégal, à la tête de laquelle le président Abdoulaye Wade maa ngi leen di nuyu muy suñu frère Mamadou Lamine Diallo ak Mamadou Lamine Thiam ak ñi mu ànd ak ma gisee mbooloo mi. dama ne bu ko Macky Sall tere woon comme vous le savez ce 30 mai passé Macky Sall devoir faire injonction à son ministre de l'Intérieur et si qu'on juge couché du Conseil constitutionnel pour essayer de valider la liste nationale proportionnelle de Askan Wi ngi ñëw ngi ñëw l'espoir de consolider son pouvoir mais il se trompe parce que li mu def dafa yaakaar ne dafa yaakaar ne bu jéemee éliminer suñu liste ni ngeen ko xamee day dëgëral nguuram wala mu yokk ko weesu 2024 mais dafa juum li tax mu juum mooy que la coalition Yewwi Askan Wi à la kulli haal dana bokk ci élection 31 juillet 2022 dafa juum parce que le 31 juillet moom ak coalition Benno Bokk Yaakaar seront battus à plat li nga xam ne moom le conseil constitutionnel def pour ngeen comprendre mi ngi nga yore kayitu ñaar dem ci boutique bi ne naar bi jaay ma kilo suukar mu ne la kayit du ñaar téeméer bi nga ma jox benn genn wàll gi baaxut ndaxte dafa tax léegi li ma mën mooy boo ma ko joxee liibaru suukar laa la ciy jaay xam nga loolu dafa yowlu maanaam dama am sama benn sër ca kër ga boo waxee loo xam ne nii da koo jaaxal dugul ci bopp bi mu ne la tu as un problème de cerveau mais Macky Sall a un problème de cerveau. gis ngeen ko fan yii mu sol ay dàllam jël suñu avion dem seeti Vladimir Poutine ñu ne ko wut. mu ne day ñëw sarax ñu may ko bele bu defaree mburu bi mu waxee ba pare Poutine ne ko waaw Macky xanaa du réew moo ñu wax Sénégal nga mu ne ko waaw mu ne ko foofu lay dex gu rëy googu ñu wax Sénégal ca waalo ne ko waaw mu ne ko xanaa du réew moomu la mag ñu baax ñi dégg ci àdduna ñoom Seydi Hadji Malick Sy Cheikh Amadou Bamba Baye Niass fa ñu jógee mag yu ne ko waaw mu ne ko xanaa foofu du réewu Sadio Mané bi may dégg avec toute cette jeunesse dynamique mu ne ko waaw mu ne ko xanaa du réew moomu moo am li ñuy wax ICS di defar engrais pour ngeen bay lu ngeen dundee Macky ne ko waaw Poutine ne ko Macky Sall président Macky tu as un problème de cerveau tu as un problème de cerveau da nga am problème mu xel Macky ne ko lu tax ko da ngaa xamul sa lii la dal mooy dañ laa yeew dañ la tënk tubaab yi ñëw na tënk waa digal soo delloo Sénégal am na benn kuréel bu ñuy wax yeewi askan wi Khalifa Ababacar Sall ca la Sonko ca Serigne Moustapha Sy ca la bokk Déthié Fall ca la bokk Oumar Youm ca la bokk Cheikh gi nga xam ne mooy gaynde Bawol di gaynde bu Waalo ay da mbokk ca la bokk ne boo demee Mamadou Lamine Diallo nga ca Lamine Thiam ca mais boo demee mu ne ko meeru Ndakaaru boobu may dégg xale boobu mooy kan ne ko dégg naa fa koo xam ne kii bu ne bismillah des àdduna yëpp yëngu muy maire de Guédiawaye xam nga nag xaw xam ngeen ko wala xamu leen ko Poutine Poutine ku bëgg ku bëgg Poutine ku bëgg làmb la mu ne ko waaw Macky ana ñoom euh, Modou Lo ak Balla Gaye Bombardier yi may dégg xale yu am doole yooyu am kattan comme toute la jeunesse du Sénégal mu ne ko yow boo xaymaa man li ma yore ci nit sama réew ak yow li nga yore ci nit yow yaa ma ëpp richesse téeméer yoon kon nag comme laa tënk boo demee ci xale yooyu may wax mën nañ laa dimbalee ñuy yeeyu la ndax nga mën a gis ma leen laaj yéen waa yeeyu askan wi ndax da ngeen yeeyu Macky Sall wala da ngeen koy bay mu continuer ci problème il a un de cerveau je vous